dañu wootee tey ndaje bi pour xawa a ben mbir ndax semaine bi yëpp gis nañ ne journaux yeeg yëpp ñi ngi génne information ak benn waa koo xam ne si moo ne mooy porte-parole bachelier yi nga xam ne kenn orienté wu leen kooku mi ngi dëgg tudd Souleymane Diouf waaye li ñu leen xamal nee na moom du bachelier ndax mi ngi deuxième année lettres modernes université Cheikh Anta Diop de Dakar donc nee na moom dafa amoon 6000 bacheliers yoo xam ne kenn orienté wu leen. biñ ko laajee fu mu ko jëlee nee na dafa dugg Campusen xool ñi nga xam ne am nañ bac mu mu génn ci ñi ñu orienté mu des 6000 ñu xam ne ñu ne ko nag loolu du postulat bu baax ndax am génnewoo woo ci génne ba fàtte nga ñi nga xam ne ñëpp am nañu bourse dem nañ ci bitim réew fàtte nga ñi nga xam ne ñi ngi ci concours yi fàtte nga ñi nga xam ne ay junni junni lañ école école école yi supérieures yi yi nekk ci Sénégal ñoo leen recruter ñu nekkuñ ci Campusen donc xam nga ne lii ñu doon wax ci rajo yi ak li am bokkul léegi nag bi ñu ko defee ministre bi nee na am na ñoo xam daf ne leen waxoon na ak ISEP yi ba ISEP yi dese woon nañ place ñu ne léegi yéen ñi nga xam ne fi mu toll am ngeen kii dem leen directement ci ISEP bu ngeen dem déposer fa seen dossier ñu mën ko étudier jël leen. boo ko jëlee tey bi ñu ko waxee bi comme mu ngi doon génn ci tele yi ñëpp di ko jëlaat naan bachelier bachelier amul bi ñu ko waxee nañu indil indil na liste boo xam si ñeent fukk.

ren au moins ñu orienté leen mooy ñi nga xam ne 2020 la